mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo sant leen bu baax gërëm leen suñu ndaje tay bi dafa tënku woon rek ci ñetti ponk yooyu ma ponk bu njëkk bi mooy sant ak gërëm peuple sénégalais bi yépp sant ak gërëm population yépp ci seen taxawaay ci seen mag ci seen dal ci seen def seen warugar li leen war lépp def nañ ko ci wàllu taxawaay ak ci wàllu pas-pas wane nañu it ne changement la ñu bëgg feeñal nañ jox nañu it ndam lu kenn laam-laameewu ndam loo xam ne nag ñii fi nekk dañoo taxaw ci foqarti boobu ci kaw mbax ak ci bañ tuur deretu Sénégal dégguleen benn yëngu-yëngu bu bàyyi ko ci ñun te loolu suñu responsabilité la suñu mag la wante li mu laaj lépp ci taxawaay ak ci pas-pas dinañu ko doxal bokk ko diisoo bokk ko taxawee pour que li nga xam ne lii peuple sénégalais am na ko ci wàllu démocratie am na ko ci wàllu tabax réew moo xam ni justice bi day mat sëkk boobu taxawaay fas nañu ko yéenee am ñu wax ni ngërëm li ak cant li ñoo ngi koy jagleel d'abord ci sama turu bopp ak turu leader yi nekk ci coalition bi yëpp peuple sénégalais bi yëpp bàyyiwuñu kenn ku ci nekk la nga def ci effort la nga def ci sacrifice yëg nañ ko muy chauffeur yi àndoon ak ñun di dawal muy sécurité bi muy journaliste yi nga xam ni ay jàmbur lañu sax yoo xam ni seeni organe ñoo leen boole woon ak ñun pour ñu couvrir campagne électorale bi lépp lu ñu dund ci àll bi dund nañu kooku ñun te amu benn yoon ñooñu ñëpp amel nañu leen gërëm di gërëm bu baax suñu jigéen ñi ak jeunesse bi di ñaaw lu itam bundu xataal bi nga xam ni bundu nañu leen ko jàpp ci ñoo xam ni ñii defuñu woon lu dul feeñal seen metit ak seen naqar ci li nga xam ne lii foqante nañ ko seen ndam di wax ne am na ba tey ci ñoom ñoo xam ni ñoo ngi ci kaso bi ñuy wax ne ñooñu nañu leen bàyyi ci li mu gën gaawe wax ni itam ci suñu jataay bii suñu mbokk suñu xarit xalifa Ababacar Sall teewu fi ñu ngi wax ci pas-pas ne ñoo ngi exiger ñu libérer ko ci nu mu gën a gaawe di wax ni lépp loo xam ne lii aar suñu démocratie aar suñu réew ba nga xam ni cër bi ko yàlla joxoon ci àddina bi ci wàllu démocratie ak ci wàllu avancement àddina bi yëpp nawoon nañ ko te lii xew ci Sénégal nekk recul bu kenn mënu natt loolu boobu jël suñu réew amaat ko wax ni itam coalition bi mu ngi defar livre blanc boo xam ni dana ci xayma feeñal ci lépp li nga xam ni lii ay ñaawteef la ak ay pexe foqar ci nguur gi bañ a def li nga xam ni lii moom la askan bi bëgg di wax ne daal ñoo ngi yeesal suñu pas-pas di yeesal suñu taxawaay lépp loo xam ne lii laaj na ko pour que volonté changement bi peuple sénégalais bi am te exprimer ko ñu taxawu ko démocratie bi itam ñu taxawu ko ba dara bañ cee xajal loolu moo doon sababu jataay bi di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay